Pagkatala ko mga alô Dahil na, binkonehela. Alon na, binkonehela nyo kalimay. Alon na, vio. Ha? não yo não treto. Yo treto. não não manda mo kung nyan kam direct. Skis mo dom. Dudag. So fis. Te dama opinião em tant que colega, é, em tant que yai. Como não me conhece uma página Facebook tai. Que um é uma dom, é um surtout Ablaye wad la du ragal nag beneen ko xam <laughs> ki du ragal nak ki moy mam mam ki nak sama yaay la nim ko waxe non la ki sama yaay la ki sama rak la waaw boolee surtout Sabara duma sama ak ak yaay mam jaar di di sama assistante nak à tous les niveaux à tous les niveaux man nak ba assistante la dama leer de naa yow waye ma du assistante à tous les niveaux en kay da ngay di sama assistante may sen assistant eh, waaw man c'est réciproque ma ko jox bureau eh, ma ko jox bureau ma ko jox bureau